ñancoo média vision fii bàyyi leen nu toog dem lijjanti suñu bopp imbécile suñu jógee seen problème ñun ñoo koy faj ba pare nu bëgg noo bàyyi say problème ñoom seeni problème ñun ñoo koy faj mu taxaa bu di wax alal ban alal la am ban alal la am gaay ñii amul benn seral amul benn seral doomu karaam bi toog ak sikkinam bu weex balaa may wax muy toog di naan ay cotiser naa sama alal def naa sama alal dugal naa sama alal génne naa sama alal nunu wax fu mu jëlee alal mu taxaa boobu si boppam mu taxaa nunu wax fan la jëlee alal Close the maa ngi sama ñii laay xool daam ñu nekk si bunt bi quoi dama wala puus benn oto ak ay bagage pour nu am lu comme nu ma koy waxee rek ma ne sa moutarde la jël na coow coow loo xam ne ni que dina ko bëgg a yebbi dina ko bëgg a yekki mu daal di ko të te coow lii nii nag mu jël mu taal kenn du ko fay képp ku si ñëw dugg di jéem a am lu ngay wax wala di jéem a am looy expliquer di nga si dégg sa loon sa musiba képp ku ñëw nag taxaw nag naan da ngay jël part wala yaay chevalier du zodiaque si yóbboo na ngeen préparer seen bopp te xam ni ko mutaha wala non booy moutarde dafa tooñ te tooñ na ñoo xam ne ni que comme nu nga ko waxee woon dee la départ on est déterminé plus que jamais tey jii nii du nu bàyyi kenn xoqatal nu si sunu komba du nu bàyyi kenn delloonu gannaaw si sunu combat du bàyyi kenn toog di nu seetaan ba pare bëgg ñoo yiw si sunu combat léegi nag mu tard il a joué avec le feu lii du sunuy bàyyi lii du sunuy maam lii c'est nous te comme duñ ko waxee duñ ko bàyyi mu dem duñ ko joxe duñ ko maye te duñ ko asaaloo pour qui que ce soit léegi nag sa moutarde la maanaam ni que yow yaa reylu xale yooyu noo nekk si mbedd bi dinañ teegal sa ndey voilà parce que duñu génnul dox ba toll fii nii wala li jënd affaire dem ba si fon bi ngeen di ñëw di semer le trouble

mu kii eh, ay sama alal eh, kii non on question Moutara fan la jëlee alal alalam nanu wax fu mu ko jëlee nanu wax moom kañ la commencé liggéey fu mu jëlee alal wala maanaam un deux trois soo waxee léegi ñoom seen bopp nu taxaw naan waaw gis neen seen cotisation gis neen seen jàppale ba ngeen xam ni que sax léegi sëñ bi moom tamit si boppam jël na alalam daa jël ñaar fukki million wala jël na fanweeri million daal di ko si boole tamit cotiser ko ngir jàppale askan mu ne mais ku musul liggéey ku musul am kii alal boo xam ne da say toog gars yi di cotiser di ko jox mu tëdd si soo jógee mu génnee da pare ne alalam ah donc cotisation gars yi alalam la nii quoi comme moom lu gars yi di cotiser pour liggéey moo tax Touba sa kanam dina gëj a dem sa kanam Touba sa kanam di ngeen ko yéex a gës sa kanam université de Touba di ngeen ko yéex a gis parce que alal yi daa am ñu ko moom ñoom ñoo seen i kër nit ñee koy gis. seni palé ñu ngi gis ay ay ay escalade cardiaque 2001 la ñuy dawal ay cardiaque 2021 ay cardiaque 2020 ay auto yu baisse tak lañ do ay auto yo xamné ay 100 millions lay jar 150 millions ñu ngi gis xamunu nak lu ñuy xamunu fa leen xey lan moy sen mais gaay am nañ alal nenañ fu nit ñi cotiser 100 millions nous cotiser 100 millions fu nit ñi ah 5 millions yoy tamit ñom wal nañ expliquer millions yi gars yi war nañ nu woo expliquer koy jëlee ay vrai imbécile ay vrai imbécile non Pape waxale daa mel ni Moutala fiche de paie moom mooy kolo kolo yi addiye cotisation du lundi au waaw loolu moom moom mooy addiyewu doomu xaraamu mu bi loolu moom mën na kolo kolo ñëw toog furi kanamam bi imbécile bu mu doon ñëw yónnee booy bas booy bas daa di ñëw toog tamit furi moustache di jaay ni gars yi moo fi gën a kii moustache di jéem am lu muy teg eh, eh, kii di duul di day léegi su ko defee nag ñun kon que nous sommes ñu ñëw tamit topp si ginnaaw ay sëñ bi ak saa sëñ bi ay waay sëñ bee bëri yërmande ay waay sëñ bee kii ban yërmande sëñ bi di doomaraam ngeen naan ma yërmande sëñ bi yërmandeem bi yëpp si cuccoom bi la ko def ak boppam cuccoom boobu noonu moom la yërëm topp xale yu ndaw yi di laal waaw poosam fees na ay affaire am sécurité la

Cette jeunesse ne peut pas être euh, rémunérée à leur hauteur. Donc personne ne va avoir la paix. Ça va être œil pour œil, dent pour dent. C'est tout. loolay wax gi nous fay nek, ndaw yi di sonn ba pareil paa yi du force, de si C'est quoi Lolo am Sénégal nit ñi ngay wax nuy bañ ma am on a qu'à regarder bien paa yi ñoo du faux. foo paa yi ñoo dellu seen i xolal seen i vingt ans Nek si dëkk bi di ko rajaxe pendant ce temps les jeunes sont frustrés di taal dëkk bi xolal di def ay ay gestes yoo xam ne ni que c'est pour appeler de cri à l'aide voilà à l'alerte que y a quelque chose qui ne va pas ken faalewu leen parce que pourquoi les parents pas yeeg yenn mais ils sont trop occupés en haut à faire la bamboulade à faire la bamboulade ay pas yi dem ba màgget di ñuulal nee neen du ñu màggee topp si xale ndaw yi iri hôtel o oh, hôtel dee naa la xale yu jigéen ñi suñu demee ba wow bët paa yi la xale yu jigéenu dëkk bi suñu demee ba wow bët paa yi la dañ siy doxaan gel mu la sa baye la génn wala sa baye la ko on fait comment on fait comment hein allez yu jigéen ñi léegi seen i baay la ni génn on fait comment hein Pa yi dellu nen seen i vingt ans di fëy fëy yëkki di tëy tëy on fait comment on a qu'à le dire on fait comment le pays est là et maintenant nee nous, ñun nag léegi non, noppi quoi qu'on a qu'on soit des jeunes pas ambitieux on a qu'à être des jeunes cons et soutenir ça, les aider à faire leurs besoins. Comme ça, les gens nous devaient, ils vont nous léguer leurs problèmes, tous leurs problèmes, quoi. Et c'est ça les dignes fils. C'est ça les bons enfants. On doit suivre les problèmes. What the fuck? What the fuck? Mais on est où? On est où? déggal monsieur Ahmed Tia, nena ma Moussa set sial. ya ya ya yaradiku nga de ma ne ko seet si yàlla waaw kay nu wax si ñaari mots yooyu noonu seet si yàlla ak yaradiku c'est deux mots vraiment intéressants et importants sur la vie d'un être humain ya ngi comprendre quelqu'un qui est vraiment casé dans sa tête, quelqu'un qui est vraiment ancré dans ce qu'il croit ou bien dans ses convictions. Et c'est quelque chose qui est de très, très, très, très, très important. Maintenant, nag nga ne yalla. ban yalla ngeen di wax yéen Yalla bobu non lan wala leeral ba mu clair ba pare comme ça wax gi meuna dugg si bop nit ñi su ngeen démé ba ngeen di wan yalla. Yalla vous parlez de qui parce que là on est perdu nous quand on parle du Dieu unique vous vous nous parlez d'un serigne wala d'un xam nga d'un Maodo wala d'un quoi qu'on ne comprend pas Légui di yalla que vous parlez là tu parles de quel yalla léegi yow yalla non noonu ngay wax yow que la fi nekkal man paté samba faatu wala ñepp la fi nekkal hein yalla bobu non ngay wax Yalla bobu yalla Ou bi la wala yalla bu raymu sedd bi la wala yalla bu supporter ah xaw ma yalla bobu non yow c'est à toi d'aller le chercher dans ton subconscience et savoir de quel yalla tu fais partie Y'a ngi comprendre léegi nak nga da ne yaradiku nga ko si si yaradiku waaw xam nga yara di lal ab tontu yaa ngi comprendre xam nga luy tontu tontu moom mooy instant bii nii xam nga xet xet bu bon xet bu bon xam nga soo ko njëkk def hmm, hmm, noonu la demee loo lay yara tontu xet bu bon la voilà soo génnee nga gis xet bu bon da nga naan hmm, voilà instant bi damaa xeeñ lu bon damaa xeeñ lu xasaw xunn lu xasaw xunn mooy gill si alentour yi lu ne bunn bu naaral xet bu ñu koy tuddee ab mutaad mën duul di day duñ koy wax léegi lan nga bëgg ma dugg xet bi ne bund ma naan ko waaye sa cuuraay bi neex na non cuuraay bi neexul foo sa fii xeeñ foo sa xeeñ yaa de la merde dans ce pays te mu ma mu taxaa oh, oh, mu tarde c'est le le père de tous les lâches le père de tous les imbéciles le calife de tous les lâches du Sénégal le calife de tous les imbéciles de la West Afrique. Il se, nomme Moutahar Tofli. qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut qu'on lui paye quelque chose qu'il n'a pas travaillé Mon Moutahar non man non, tour qu'il non, non, non, wala wala non c'est la lâche lu mu fi wane boobu ba léegi c'est de la lâcheté doomaraam moo ngi nëbb crime moom moo ngi nëbb crime ba pare ñun ñuy wax di li jël sunu dëkk mu ne kenn gën te ba ba pare toog moom nëbb krim crime la nëbb crime Ça va talk un déw Kara avec plus de 16 morts Je ko accusé ba accuser. pas complice de crime complicité moo Kara ba de il vient pour parler dans les problèmes du pays Moi, kan ñun parler dans mayatul mu wax sunu sommes il n'a rien à dire lu muy wax nako yamale Touba soxlaw nu ay advice am soxlaw nu waxam soxlaw nu koo deglu, du tous monul tontu fi lan fi poser ay question 33 femmes ñett yu bokku ndey ak bay ak ben demi sœur ken mënu koo tontu donc vous devez la fermer loloy wax gi vous devez la fermer yeen su nee len ba son su nit ñi di wax da ngeen wala rasatu dox tëj sen gat loolay wax gi ba pare mu bëgg a dugal gémmiñam sur notre révolution si ñun suñu problème koo kii la moo ko dal yéen ba balaa ngeen di mën a toog di wax di dara ba am lu ngeen di expliquer faut d'abord répondre aux réponses qui vous attendent depuis plus d'un an góorgóorlu leen si réponse yi loolu mooy seen droit d'entrée loolooy seen ticket d'entrée mooy seen participation vous n'arrivez pas e ngeen toog yi eh, bañ bañ bañ bañ bañ waxam il n'a qu'à la fermer c'est un imbécile je vais faire connaître ça à toute la jeunesse à tout le monde que Moutaha est un imbécile il n'y a même pas il a pris une guerre maa maa ko eh ko ça va repartir On on a encore. wax n'a comme question yi question voici question deuxième tour fan Moutaha la. ba muy toog di am nu muy expliquer di wax yow mu tu vas nous dire tu vas nous dire qui qu'est-ce qu'il a tu vas nous dire quest de la gueule des gens te fous de la gueule des gens te boobu ba léegi nag si ginnaaw mur la toog di wax de boobu ba léegi ñemewul génne ndongam bi wax si ginnaaw la làqatu di yónnee di yóbbante di wax ñemewul jël boppam génnee ko nuy wax muy doomaraam doomaraam un deux trois yaa ngi sa alaal dig nu wax foo ko jëlee Là, da nga alal yaa ya yap jàpp de tu vas nous dire où tu as pris ton argent su nekkee xaalisu cotisation gars yi mooy sa alal wa ilaa yow da ngaa liggéey alal tu vas nous dire où est-ce que tu as pris ton argent du lay audit du lay audit ba mu neex du lay laaj du lay laaj ba mu neex dafa lënd suñu bopp parce que yow 1 2 3 cotisé nga 1 2 3 kii alalam jël na alalam waaw sëñ bi jël na alalam def na si waaw def na si alalam waaw kii ki nanga ban alal ban alal koo xam ne du nga yor fan la jëlee alal na tëj gatam na tëj gatam fan la alal Donc, il va, nous, il va nous répondre. Il va nous dire où il a pris cet argent, d'où il puise ses ressources. Soit c'est alalu nguur gi, mooy alalu askan bi ñoo nguur foofu lay tibbijee di ñëw di daf daflu soit ki mooy loolu et tout va être clair. Il va nous dire pourquoi tey jii nii ñun génn di lijjanti suñu ëllëg moom mu naan toog leen naxante parce que lan moom biiram fees na gars yi ñoo ko yor. biiram fees na gars yee ko yor quoi. Abdou Tamba Abdou Tamba Lola parce que tant que Nafiq mon frère affaire bi Nous la continuer metti Nous nous Nous ñu Nous wax allons walu ta wax loolu nous Nous wala wax Nous waru ta wax nous nous nous nous que nous en fait je je vais me reformuler ça ñii nu foog na ni que ñoo war a wax ñoo amul lu nuy wax ñoo warut a wax ñu war a wax nag ñoo ngi wax te kenn dégluwu leen ñu war a jug amatuñu yaakaar danoo réer ku si nekk nuy gëstu di gëlëm et wax gi moo tax pour mu pour mu defaru de ça va être très dangereux xam nga yow ci on va on compte sept sept morts lors des manifestations man je ne compte pas sept morts gars yi ñoom ñooy compter sept morts mais man je compte plus de mille ndéegal ma mille cent cinquante morts loolu laay compter man plus de mille cent cinquante morts parce que y a même pas quelque temps en arrière on a perdu mille personnes dans l'océan en moins d'une semaine ñu doon jéem a daw si gaal yi ngir lan lu ko waral dund gu metti ak loolu nguur gi teg leen ko lu ko waral yaakaar yaakaar bi nag kilifa diine bi teg leen ko kilifa diine xam ni que dëkk bi dafa asaaloo dëkk bi dafa kii mais ñoom seen sas yi tey lay gën a sasu tey la ñuy gën a yokk seen i sas seen i affaire soo waxee ñu ne la yàlla bu déwén dàq bu ren màggalu déwén dàq bu ren ay kii ren suñu defoon cent millions déwén fa def cinquante cent cinquante million léegi nag jamono ji metti gars yi dëgër affaire yi tam kenn mënatu see génn mais sas yaa ngi fi facture yi ñëw gën a cher dund gi ñëw gën a yokk bàyyi faal léegi nit ñi tamit amatuñu yaakaar comme léegi nan noo leen ko teg ñan léegi nous sommes à un point on fait un choix soit ñuy continuer di déglu gaa yooyu noonu continuer di xaru di dee ndànk-ndànk soit ñu teg leen nële daw ñëw lijjanti suñu bopp a que ça ku leen ko waxul waxuleen dëgg on continue sur ce même système di dundal ay nit ay fainéants yu bëggul def dara tëdd jaaxaan nit ñi di génn di yelwaan di leen dundal di kolo kolo di leen jox wa ila nu teg leen nële daa di ñëw ya jàkkaarloog ñoom defanteeg dëkk bi changé lii mu jeex fi lu leer laa leen di wax eh ma fay ma fay nee na ma yow doomaraam nga waaw waaw merci déggol jamono ji xanaa xamoo seuls les doomaraam vivent longtemps seuls doomaraam vivent longtemps et seuls les doomaroo se reconnaissent comme ça mu taxaa c'est doomaraam comme tout le monde donc man foog ma nekk doomaraam pour mën a defanteeg c'est comme ça seuls les doomaroo se reconnaissent waaw man kay dégg ma may bàyyi doomaraam moo tax ma mën a def ak loolu bu mu leen yàq bu mu leen métti c'est pas un problème c'est pas un problème ñun kay am may problème mais man damaa jaaxle xam nga man en tant que doomaraam damaa gis ku ma gën a doomaraame c'est ça le problème moo tax mënatumaa toog léegi nag nous sommes en concurrence ma moo ma gën a doomaraame imbécile boobu noonu parce que c'est un doomaraam en man doomaraam bu beuri wax la sa obes man dama la damay wax damay nakal damay mais Moutar doomaraam bu bu mel Moutar mooy un doomaraam fainéant un moo may kaas di ñaxtu mom moom du bu am jom sax ah wow, vous voulez des doomaraam eh seen doomaraamu khalif bi commencez par lui après vous partez sur vos doomaraam de cheikh dégg ay Cheikh Modou Kara doomaro euh, doomaraam doomaratitude ngeen dem sur euh, les Abdou Karim caga doomaraam moo ngi noonu mandikatu caga doomaraam tuxkatu boon vous partez chez l'autre kenn borom daaru moo ngi noonu tamit topp jeeg bee katt rek ak xale yu ndaw yi tamit di duul leen comprendre yéen xam na ne booy kayo nu ko te booy bas lootu dooma xaraam xaalis taatu xale yi loose loose loose loose des doomaroo comme vous voulez allez-y doomaraam yaa ngi noonu seen biir kër yi fees fa dem wante daal ñun lu nu wax leer na nous nous parlons, on lâche plus l'affaire dinañ toj seen cottu ndey ba nu toj seen gat soxlaw nu nu wax suñu problème amalu nun benn njëriñ ñun ñoo leen yore comment nu ma leen yore ba pare nu bëgg wax suñuy problème nañ kat seen ndey ñun on oh, ñoo leen di dundal ba pare ñun ñuy lijjanti dund bi ñuy ñëw di kat seen ndey di am lu ñuy wax ah avec ça les kan leen bëgg raylu ñun leen bëgg raylu balaa nu noo ray nu ray leen nag loolay wax gi day clair de wala day clair fi kenn kenn ragalu fi kenn wonu len su nekké nak ay kun len yooyu ñoo yor ñaan nañ ñaan ana ñaani ah nañ ñaan ñoom ak seeni ñaan seen tuunu nday deegi deeg ñoom ak seeni seeni seeni i seen i kurus mais qui c'est celui qui a honte du lol moy kurus no hein ay eh? eh, xawma lan nañ ko peri nombre peri nañ ko jor ruux ko fu may xalat ñu xol nañ ñaan qu'est-ce qu'ils vont faire rien seen ñaan yu punkal yooyu noonu yëpp ñuy topp di wax ñoo ngi si dëkk bi dëkk bi sonn ah nit ñi bekkoor ah paysans yi mënunoo jaay sax lu nu bay xale yi di daw di dee si géej bi c'est président di sàcc ñoom ñuy sàcc koo dénk mu sàcc mais ñaan baa ngi fi nit ñi di daanu leer ñee di daanu rab jinne nekk fi nu naan la ay kumba bang naan la ay lëg daawur ay ay mboose ay ay affaire kenn comprendre mais ñaan yaa ngi fi daal léegi nañ ko génnee nu gis ñaan nañ ko seen tuunu ndey ñoom ak seeni ñaan ñaan nañ ko seen tuunu ndey voilà surtout moutarde na wax mu ni non mais moutarde eh eh eh eh, eh di am ni wax eh, na genn na genn naa ka sorti ba parler kanamam bi moo gën muy Tu viens arga arga kay si combat bi kay da ngay combattre kay yow ni pour ngay fay combat tu veux faire le combat faut venir faut venir on va combattre ce digg la fal ndey kay kay sa di supporter am kilifa diine ngeen kat seen ndey toog si diine bi soit kilifa politique ngeen wax si politique bi nu toj seen cott ndey comme ni ñuy tojee ndey politiciens yi point barre chacun retourne dans ses tubes du ngeen nu sono ñun dépense la ñuy si du ñuy dàqee dépense te dépense bi lu ñu si dàq yi ñoo jox leen eh doom ak xaraam yéen nag ñun ñu yore leen ngeen ne ñun duñu dàq suñu dépense duul ngeen duul ngeen du ñuy dàq dépense ba mu neex duñ koy dàqe ba mu neex doom araam

leg ay quelques fanatiques fi fanatik fanatique ay xaftaan ki mbubu ñoo leen ñoo leen luqi moo tax yi nga xamni ni at ba at la ni lek ganar, ñom ño fa dess di wax suñu lekke ganar señ bee leen may ganar suñu gisee yap señ bee ray lu yap motax nu nek fi di expliquer doomaraam rami musunu yewunu sen bop yewunu sen bop ay con sont même pas intelligents sont même pas intelligents Serigne Touba kii nangam kii lii moom mooy des lii mooy héritage yu Serigne Touba lii la nu Serigne Touba bàyyil quoi léegi lii moom mooy mouridisme lii wala xaw ma lan lii la gars yi wala jël top quoi lii moom moo wala nekk suñu héritage moom la gars yi wala what the fuck auzu a mina sheytaani rajim yàlla na nu yàlla musal si lii laa lâche doomaram con, hypocrite, n'a que chien. ni oh oh. ha hein? lui yàlla xam doy na. si, lui Li, musiba Li, lii nag suñ si tegaatee en dix ans hein. Sénégal c'est fini Sénégal gassi. lui rythme bini nous t'avons que ko en dix ans c'est comme Sénégal. yor sa ay golo dajale len ci al doon président bi mooy gën yomb sax wa que eh, gérer Sénégal lu leer la len di wax rythme bi suñ ko dawaatee 10 ans il vaut mieux trouver xolal quelque part là où tu vas mettre des chèvres et des moutons et quelques singes et devenir le président moy gëna yomb moy gëna a sa easy que xam nga non Sénégal lu leer la leen di sama gars yi bu leen dara metti ñii di naan information pas normal nooy normalé looy normalé si dëkk boo xam ne ni que les fous ñoo normal kay ñun mënatunoo normal si dëkk boo xam ne ni que si wax bi rek leen koy gouverner wax leen ko yoree lépp ay wax kese la lu kenn mënul gis Légui, tout le reste des choses il faut utiliser ton imagination nooy normalé c'est un pays de fous loolu mooy dëkk yoo xam ne ni que da ngay génne nu wala asamaan ne la boo xoolal fii jumaa a ngi nii wala xoolal fii étage a ngi nii léegi yow nga wala toog utiliser sa xel dessiner fa benn jumaa toog rek su monde boobu leen nekk nan lay normale ay sët yu naan ñoo yor ay caabi àjjana ñoom ñooy wax ak yàlla di dee comme ay mouche nii piw piw kii su deewee moroomam dee yéewul kenn mais nit ñi construire un paradis derrière ça créer ay um nan la ñuy normale nous sommes dans un pays que da nit day génn sa daan ne sëñ bi feeñu na si mur kon bi fees dell gars yi ñëw mar si mur bi ñii ñëw xoos si mur bi ñii ñëw tëdd si mur soo xef leen wekk si mur nan la ñuy normale ñëw garab bi ba mu dee e ku nekk fereje ko fereje ko fereje ko ba mu dee nan la ñuy normale

gars yi kañ la ñuy yeewu eh, seesa <laughs> ko eh, yow yàlla toppeewu la dara ah yow da yaay wax man de yàlla daaneel ma jaamu ko yàlla jaamu ko rek la ma toppee loolu rek ak dëggu wax dëgg voilà du ko weesoo moom yàlla toppeewul kenn lenn yàlla daane rek jaamu lañ ko léegi kay la kay ñun ñoo topp mu tardé voilà ñun ñoo topp dëgg bi ah wow ah, ah, ah Oi, sawaatay waay yaay yooyu sawa ji de wa xam nga la lay paan ay wa du dara we wax pare du dara dawal uti xam-xam xam nga de dem uti xam-xam hein ak wax sa wax sa position c'est ça le problème c'est que nit da ngay ñëw nga wax sa fulla ba pare gars yi di ko jël di ko takkalee xam-xam naa la ay demal uti xam-xam ma ne leen waa léegi xam-xam noo koy xàmmewee ak xam-xam noo koy gisee xam-xam duñ koy donn wala duñ koy uti voilà léegi de la même façon tey man may ñëw may wax samay doléance kenn boo du ko déglu na ma util xam-xam léegi pourquoi xalif yi ñoom ba du ñëwee toog newunu leen nga yéen newoo leen ñu dem uti ji xam-xam mais ngeen lem leen xam-xam bi da ne ok sutu diw la mom amna xam-xam donc wax gi ah wax gi da am par lo da am kumba am nday kumba ñak nday wala ay affaire mu taxa ba mu ñew da ngeen ko wala ne mu dem uti ji xam-xam parce que xamul dara eh donc man je a pas xam-xam moom xam naa ne que ñu koy sàq ba abadan man je ne suis pas de ce cas là mais de la même façon que vous voulez me donner des conseils wala ay affaire de kii di jéem a expliquer di wax voulez mais pourquoi xa seen xalif ba mu ñëwee tamit newa leen ko sëñ bi xam nga wax dëgg fa yàlla rus neen la ay affaire de kii on t'aime bien xam nga parce que loolu bëgg rek la koy wax quoi xam nga ak ku la yëg bi on t'aime bien xam nga affaire kii mais wuta jël xam xam nga va trouver xam-xam xam nga cool, on t'attend mokale, so soo que après dinañ la mën jox place bi du yàqu xam nga pourquoi vous l'avez pas fait mais là vous avez mis le gars alors que amul xam-xam mu ñëw tok di shirk rek mu ñëw tok di bokkaale rek lum fi wax lepp bokkaale la Lum fi wax lepp mu talaa wax nga fat say nopp day wax rek nga fat say nopp ah donc où est le problème wala da ngeen di ségrégation tamit waraara sa wuy sama dayooy nee naa leen coow li woo taay nii j'étais pas dans mon assiette xam nga taay nii passé ba may gis affaire yi sama xol dafa jeex ku ma suivre xam ko j'étais pas dans mon assiette mais mu taxa ma remis dans les points ba ma ko dégluwaate ki dama robuste wu jugaat daan ne non il faut pas que je laisse cette histoire là comme ça we back in that shit déggoo lu la wax mu tarde yenu na li yéenu na coow li la coowee laa voilà lu ma wóor nag ba wóor mooy ni si biir wuti ji xam-xam bi yëpp seen xalif maa ko xam-xam point seen xalif man maa ko ëpp xam-xam c'est tout waaw mu mu mu tarde moom maa ko ëpp xam-xam on a qu'à aller chercher une autre personne wala keneen ay moutarde moutarde su ñëwoon sama école xoolal maay chef de classe am maay chef de classe am su ñëwoon topp may njaatige maa koy di daa xam dara mu tàdd un lâche comme ça nul bête kii hé hé dégal dégal Sacha non Sacha do dem waay waay yooyu waay Sacha nee Sacha non Sacha ma loolu mënuma koo répété ma dama naan Mountakha yéen yi dafa béjjaaw dama naan Mountakha même yéen yi dafa béjjaaw fa laa yem quoi xam nga man am na ay affaire yoo xam ne ay force de frappe yoo xam ne ni ko yooyu mënuma ko quoi Mountakha ma damay yem si yéen yi dafa béjjaaw waaw mais xam nga. Ñaanco Média Vision.